consumériste yi ci ci ci journée bi tey boo doon def le point le point ci ci ni di li ngeen di xeex. waaw buñ doon def euh, le point ci 15 mars bi mooy suñu droit at suñu yelleef mooy am na lu ci am mais am na ci loo xam ne nag manqué nañu mooy loi bi nga xam ne moom la ñu wote woon assemblée te loi boobu di ñu may ñu mun a yóbbu. bépp nit koo xam ne tooñ nga ñu pour ñu mën a am réparation j'en veux pour exemple tey opération euh, euh, kii yi nga xam ne xewoon na fi Kër masaar un mois amuñu ndox te pourtant kenn xamul diggante acteurs yi kan moo ñu indil loolu loi boobu bu fekkoon ne tey décret d'application yëpp dafa am association yëpp am ay seen agrément bu boobaa dinañ mën a jooyal askan wi ci yoon ba ñu am réparation loolu bokk na suñu àq boo xam ne ñu ngi koy revendiquer te fii mun nañu ko jox yeneen yi nag mooy information war na ko mën a am tout le temps war nañ mën a aussi am sécurité ci li ñuy jënd war nañ am aussi Euh, ay droit ay obligation itam pesé na ci ñun loolu journée boo xam ne la 1983 85 assemblée générale des nations unies cekleel ko waa jëfandiku yi d'accord ni ki tey Momath Cissé xam nañu ko euh, li nga xam ne mooy waxtaan euh, bi nga xam ne président de la république amal na ko ak acteurs yi yëngatu ci secteur associatif yëpp ngir fexe ba wàññi dund cherté dund bi waaye li ñu gis euh, ginnaaw wàññi bi am na ay commerçant yu bëri yoo xam ne respecté wuñu ko te Sénégalais yi euh, ñu ci bëri jàpp na tey la ñu gën a euh, sonn. foog ñu def jàngat bu gën a yaatu te jëlee ko ci conséquence Covid ak guerre Ukraine ndax ñun dañu am malchance di fekkee réunion yu bëri macha allah. te réunion yooyu mun nañ ci jàngat ne même avant concertation yi am na ay mesures yoo xam ne état jëloon na ko ci denrée première nécessité yi nga xam ne dañ koy jëggaani mooy suppression taxe yi mooy suppression taxe douanière yi mhm. fiscale yi parce que boo xoolee ceeb bi dindi woon nañ ko nga xool blé bi dindi woon nañ ko mhm. nga xool diwlin bi am na luñ ci dindi woon lu ci bëri vraiment douane ñu ngi leen di jaay jëfal liggéey nañ seen liggéey li mu waree mais yëf yi dafa yàgg te te te la gën a tar foog ñu xam ne principe fii ci senegal mooy la liberté des prix ku mu nekk lu la neex jaayee l'essentiel na licite te nekkul produit boo xam ne mm-hmm. dañ koy encadrer te produit yi ñu encadré nga xam ne seen prix dañ ko ne boo mën ngaa jaay lu ko yées mais mënoo jaay lu ko ëpp produit yooyu bëriwuñu tey ñu si bëri boo leen ne ceeb bi ñu encadré mooy indien bi 100 pour cent brisure mais bu demee jënd basmati bi prix bu cher dañ naan lépp cher nga dem ci diwlin bi nga xam ne dañ ne huile de palme moom lañu encadre prix à vingt mille cinq cent le bidon de vingt litres nga dem jënd huile de tournesol mu cher mu koy da nga naan lépp a cher effectivement lépp a cher ndax bitim réew lañ koy jëlee te bitim réew lépp fa cher fi li ngay wax nii ñi ne ci nguur gi loolu la ñuy wax moo tax euh, consommateurs yi duñ leen gaaw a gëm. Euh, consommateurs yi li ma leen wax ku ci nekk bu fekkee ne doo politicien mën nga maa gëm parce que li ma lay wax mooy li nekk. te boo demee loolu ngay gis te yi pompiteer ak soble encadré woon nañ ko par erreur. lu tax loolu nangu na waa parce que dafa dañu jëloon base boo xam ne. Mhm. base boo xam ne dafa ñëwoon ci Maroc maanaam soble si nga xam ne Maroc lay jóge wala pompiteer. Mhm. xam nga loolu bokkul ak prix bi nga xam ne mooy jóge ko Hollande ndax Maroc c'est à côté yàlla def Maroc nag 10 pour cent sax du ko indi Sénégal daal di jeexal 90 pour cent war a jóge ko Europe soble si ak pompiteer bi jóge ko 8 euros dem ba 19 euros ministre du commerce bi fi nekkoon Aminata Assome Diatta mais chaque lundi. muy diwlin parce que diwlin bi demoon na ba trente mille boo koy fàttaliku. chaque lundi amoon nañu réunion ak commerçant yi ak association défense de consommateurs yi pour que ñu wax commerçant yi ñu dem jëli produit bi te bañ a xool prix bi ndax prix bi buñ ko xoolee buñ leen sanctionné benn commerçant dootul demati te nag. foog consommateurs yi reconnaître leen mooy que amul benn bis boo xam ne dem nga demoo ci marché bi fekk fa diwlin amoo benn bis boo xam ne dem nga ci marché bi fekk fa ceeb amoo benn bis boo xam ne dem nga ci marché bi fekk fa suukar. si suukar bi kay. suukar bi léegi la fan bi léegi la li ma lay ba léegi sax non suukar bi léegi la. li ma lay wax mooy tangu Aminata Assome Diatta suukar bi léegi la. bi compagnie bi commencé produire au mois de décembre. te ci loolu yéen ngi cee noppi. noppiwuñu daanu nag dafa dajul suuf man mun naa wax ne fi mu nekk nii démb rek conseil économique et social seen invité woon nañ ko problème bu suukar bi évoqué nañ ko dañu ne ñun ay consommateur lañu mm-hmm. am naa gëlëm mu nga gànnaar kooku taxul ñuy wax. compagnie sucrière nee na am na vingt mille tonnes tey mais boo demee ci boutique bi dafa fekk sucre en poudre kon donc na ministère du commerce nga xam ne moom mooy protect moo yore protection du consommateur fexe ba suukar soo su nekk su surtout que ñu ngi dem ci ci weeru koor ñu ngi dem ci ramadan bi. moo xam nu mu koy defee moom ministère bi mais na fexe problème yi ñuy évoqué maanaam am na commerçant yu ne bu ñu demee ci compagnie sucrière seen camion bu daf fay yàgg. dégg naa ci conseil économique social ne compa ne compagnie sucrière ba mu fa jaaree bërki démb nee na 72 heures war nañu livrer 72 heures dafa bari camion bu boo fayee tey normalement bu camion bi déparé yegg Saint-Louis war na mën a retourner dans la journée bu fa yeggee donc nañu nañu baral chargement bi parce que période bi ñu jëm période de ramadan la te il n'est plus question que ñuy dégg naan euh, Kédougou wala à travers le Sénégal am nañ problème mu suukar. ah sénégalais nañ ci de da ngay. moo tax ma ne ministère bi. ba pare ñuy profité yokkaale prix yi mais tension bu amee rek prix yokk. tension bu amee rek prix yokk. 575 la ñu waxoon prix homologué le kilo de sucre en pot à Dakar amul benn boutique boo koy jaayee loolu 600 francs bu tension ñëwee sax 625 francs voilà 600, mais dafa parce que dafa dafa dafa disponible. mais loolu est-ce que mën na nekk explication aussi bu bu amee pénurie ñu profito yokk ko te euh, consumériste yi nekk fii euh, duñ leen dégg bu dul dem réunion ak ministère beeg yi ni lay gërëm ci li nga xam ne may nga ma ko pour li ñuy wax mu dugg ci nopp ministère du commerce solution bi rapidement moo xam fu muy jëlee suukar Abdou Karim Fofana Abdou Karim Fofana moo xam fu muy jëlee suukar mais ñun am naa gëlëm mu nga gànnaar du suñu problème ñun na suukar nekk ci boutique bi à travers le Sénégal et d'une manière abondante parce que période bi ñu jëm période de forte consommation la te ñun dañuy soxla suukar période de forte consommation léegi est-ce li ñu wax yëpp ci wàllum te dund bi du tur lëndëm sénégalais yi parce que non seulement application bi ñu ci bëri santiruñ ci seen bopp waaye it ñenn commerçant yi lañ def mooy stockage bi ñu denc ko euh, xaar ba yëf yi tàng génnee ko yokk prix waa xam nga loolu bu ko commerçant defee def na lu mu te maa ngi ñaan les corps de contrôle ñuy dugg ci gannaaw boutique yi di xool itam répertorier commerçant yi nga xam ne c'est les grossistes yi nga xam ne ñooy traité compagnie sucrière lan lañu fa jëlee ak fañ lañ ko dugal. parce que am na suñuy wax nañ ñoom dañ koy jaay industriel yi parce que dafa am ñaari pàcc industriel yiy def boison am na fu ñu doon approvisionné bu fekkee marché international bi dafa favorable bu boobaa amuñu benn problème parce que compagnie sucrière bi li muy indi fii di ko def mise à la consommation auprès de ménage amul problème mais bu fekkee ne commerçant bi dafa dem quota am jël ko jaay ko industriel bi xam nga foofu am na vide boo xam ne waroon na ko def ci consommateur yi loolu ministère du commerce moo ko war rek mais en tout état de cause muy industriel muy consommateur lambda ñun li ñu soxal mooy ñu gis suñ suukar bi fa ñu ko war a gisee heure ba ñu bëggee mais am naa gëlëm mu nga gànnaar moom doy. léegi ani volontaires yi nga xam ne waxoon nañu nañu leen recruter ñu bokk ci ñi war a surveiller application. prix yi. waaw mille volontaires de la consommation la ñu waxoon ci cadre concertation nationale yi am na début deux solution parce que dañ koy graduer d'année en année am na foo xam ne tey jii ñu ngi ut euh, ba contacter nañu association consommateurs yi ñu war a fournir ay nit yoo xam ne danañ leen tàggat danañ am certaines charges yoo xam ne ñoo koy remplir bu ko defee ñu nekk personnel d'appui sur le terrain ba nga xam ne euh, contrôle bi ci war mm-hmm. nga xam ne ministère du commerce manqué woon na effective ñu daal di ko ASCOSEN dina ci bokk ASCOSEN dina ci bokk am nañ suñu membre yoo xam ne en toute transparence mm-hmm. wax nañ leen ne bu fekkee ne soxal na bëgg nañ Euh, te respecté nañ cahier de yi ñu postule bu ko defee ñu ñu ñu ñu ànd ak gars yi. ñu ci bëri nee nañu asko seen euh, <coughs> boppam lay liggéeyal te nguur gi lay àndal. Euh, fii Walfadjri de Sid Lamine maa ngi koy ñaanal yàlla xaral ko àjjana. maas nañ fi suma président national tëj ko te boobu amoon na saako ceeb bu mu mën a jëndee. ban jamono la. jamono maître Abdoulaye Wade. mais jamono maître Abdoulaye Wade. te boobu conseiller président Macky Sall ñëwee ba léegi. te boobu conseiller technique la bu maître Abdoulaye Wade bi Macky Sall ñëwee 2012 boo xoolee am na moment boo xam ne dara yokkuwul ci yokkute yi ñu ngi ko commencé rek. bi Covid bi ñëwee conséquences mais léegi yokkute mi ngi commencé jéggi dayoo. rawatina nag ginnaaw bu ñu jëlee yenn yenn mesures yi taxawal taxawal moo waral léegi ci ci euh, xam nga da nga ne bi bi bi Macky Sall ñëwee. ma ne dafa am période boo xam ne déggoo ñu ñu wax dara parce que lépp nice comme niñ ko gars yi di waxee. bi période bi ñëwee bi période non non non parce que prix yokkuñu woon ah. en 2012 prix yokkuñu woon parce que sur le plan international le vent était favorable. nopp buy dégg nag bu fekkee ne boo ko waxee mu dégg jarul ngay battre le macadam suma président national conseiller technique la te bu waxalee Macky Sall mesure yu bëri mu jëm ci social nopp bi da koy dégg. est-ce que wax na ko léegi mesure yu mu jël ni amul benn effet ci dundinu Sénégalais yi. xam nga xam nga boo nee amul benn effet dañ koy relativiser tuuti ñun ndax da nga jàpp ne am na effet. diwlin bi de wax dëgg yàlla bañ ko jëlee mën nañ ko appliquer waaye nag boo jëlee mesure ci erreur te reconnaître nañ erreur bi ministre bi reconnaître na ko après loolu itam foog nit ñi comprendre ko. waaw loolu ci benn pàcc la ci ci. boo jëlee nag bi ak pomme de meew bi aussi mi ngi fii. yokku li ma la wax dama la ne. ak loolu laa léegi ci buddi bi dafa dafa yokk. dañu war a dem assemblée. dañu war a dem assemblée fi ñu toll nii ne le principe ce plus la liberté des prix mais le principe c'est l'encadrement intégral de toutes les denrées de première nécessité muy diwlin muy ceeb muy diw muy lépp mais loolu mënul nekk waaw xam nga le problème que nous avons da ngeen di le problème que nous avons wow. c'est que la pa la les consomateurs ne font pas jouer la concurrence wala ñi nga xam ne ñoo yor boutique yi ñoo yor boutique yi def entente parce que da ngay dem ci boutique bii ne ko dentifrice laa bëgg dentifrice kenn encadré wu ko mu ne la cent franc nga dem si boutique bële mu ne la cent vingt cinq mais boobaa demal ci cent franc bi. waaye nag bu subaa boo ñëwatee ñoom ñaar dañuy dañuy lëkkaloo ne cent vingt cinq ñoom ñëpp te loolu loi bi daf ko tere donc corps de contrôle yi entente boobu nga xam ne moo am ci boutique yi parce que fii benn boutique rek a fi am bu ñu waxante dëkk moo tax entente di am. entente boobu nag c'est réprimé par la loi moo tax ma ne corps de yi nañ ci jot détail par détail képp koo xam ne yaa ngi jaay dara ñu xool la ko jëndee la nga ko transporter ak ban marge nga ci war a teg s'il faut indexer yeneen produit ñu indexer bénéfice bi te bañ ko bàyyi rek parce que concurrence amu fi fii entente moo fi am concurrence bi Sénégal mi ngi bay ay soble ay pomme de terre euh, yàgg nañu dégg ñi ñi nekk ci euh, secteur yooyu di ñaxtu te mos cee dégg itam lu ci gën a bëri asko seen du ci du ci àddu. Euh, xam nga tey jii boo xëyee rek dox ci tali bi mm-hmm. tali boobu avant ñu koy def mu ñuul ba nga ciy dox conception la dañu ne ARM mm-hmm. agence régulation des marché ñu nga fa. am na ñu bëri depuis très longtemps di ñëw pour def ay infrastructures de stockage lu ñu manqué la et c'est domage que suñu soble am nañ autosuffisance mais 40 pour cent day yàqu. pomme de terre bi. pomme de terre bi heureusement que y les indiens qui sont ñoom am nañ seen infrastructure de stockage boo xam ne mën na jël lu bëri pendant six mois. mais teewul am na lu bëri lu yàqu itam. am na luy yàqu ci tool yi. parce que amuñ infrastructure de stockage. c' est pourquoi may lancer alerte. même sur la chaîne de valeur gouvernement bi acheminement produit bi problème la. moo tax may lancer alerte gouvernement bi. am na benn doom boo xam ne mu ngi ci bay séddoo contacté na contracté na ay emprunt bancaire li ko dese pour état accompagner ko lu tuuti la te état ngi trainer des pieds ba léegi. te état bi moo waxoon dina leen faciliter la tâche. problème am sax évoqué nañ ko ci conseil présidentiel bi nga xam ne ci ci cadre de concertation national bi ba nga xam ne président joxe na instruction mais loolu. kenn respecté wu ko. kenn ba léegi ñu ngi traîner ñu ngi traîner ñu ngi traîner alors que doomu réew mi la di di di di di keroog euh, daaw jéeg bi fi soble lambee. mais moo demoon ci àll bi jël risque yu bari tey jii mu xalaat ne infrastructure de stockage sénégalais yi mën nañ ko defar mu dem jël si ay banque sa par euh, euh, part bi nga xam ne moom la war a mais ba léegi. amul benn accompagnement li nga xam ne mooy moom moom moom lañ ko war a accompagner ba léegi ñu ngi traîner et ça nous le nous le déplorons. mais ça veut dire par moment aussi il faut que Ascosen. bàyyi léeg lekk même bu dee dafay participer si si réunion yi ak gouvernement bi euh, jéem a itam mm, taxaw pour yooyu ñu mën ko parce que le président la république Macky Sall itam yàgg na fi wax ne ne retour au consommé local mais li koy mën a mandargal ak li koy mën a pousser ba mu am aussi c'est un problème. Euh, problème bu consommé local lu réel parce que sunu habitude waxoon naa ko ci njëlbeen. ne presque li ñuy lekk yëpp dañ ko jëgaani euh, ministre Aminata Assome Diatta defoon na fi mois du consommé local mais boo xoolee consommé local dafa transversal agriculture ci la bokk artisanat ci la bokk ministère yu bëri ci la bokk donc ministère yu yëpp dañu war a gëm loolu du ministre commerce rek moo war a gëm consommé local tant que ministère yi nga xam ne da nga maam ñoo concerné wu ci concerné ka ñoom ñëpp nekkuñ au même pied d'engagement dafay sooxe léegi nag mun naa wax ne y a des initiatives bu fekkee ne da nga bëgg a wax ci blé bi surtout la farine parce que tyrannie du blé bu amuloon compensation perte commerciale yi nga xam ne état bi mu ngi koy jox meñe yi te mu te meññee yi nag dindi ay jàmbaar parce que li ñu leen yoreel bëri na te ils n'ont pas encore fermé boutique. non parce que li ñu amoon bëgg nañu ko yokk prix yokk nañu ko et puis euh, seen yoon newul ci situation sénégalaise yi. Euh, meunier yi traîné nañ loon ñun association défense de consommateur. Mhm. bañ waroon a yokk yàgg na trop. ñu topp leen topp leen ba ñu dem grève te mësuñu grève meunier yi fi ñu toll nii. li leen état yoreel ci ay milliards mënu mën a ko wax tey. waaw oh, lii mooy problème bi parce que. da ngeen di défendre consommateurs yi défendre aussi industriels yi. parce que les industriels bis boo xamee ne tëj nañ tey tey tey tey bu boobaa boo yeewoo boo demee doo gis mburu man ngay njëkk a woo ne ma mais Cissé mburu amul tey kon doog damay fexe bu mburu di am te mburu ni muy amee mooy bu ñu nekkee ci dëgg meññee yi mën a ñoo nekk ci dëgg état fayal meññee. parce que boo fayul meññee meññee dana fermer te bu fermer yow di nga ma woo ne mburu amul mais réew noonu lay doxee par moment bu dee lii mooy yoon nel yoon la te fii Sénégal ñëpp consommateur lañ. d'accord moom bët bu set ñu ne ma mais si sa yow yaa ngi ñu yow yow yow yow yow yow yow yaa ngi ñu yow yaa tu vous ne défendez pas parce que euh, pourtant ñun euh, sa njaboot lañ mais ku ci nekk si dëgg rek. Cissé dina la défendre Ascosen dina la défendre. Momath Cissé vice président Ascosen loi euh, location bi luyaas bi euh, ñu ci bëri jàppoon ni euh, bi pa dina dina nu respecter li nga xam ne moom la bëgg président Macky waaye ginnaaw bu nu jëlee décret bi ni ki premier mars.